Ah, jërë ngeen jëf mbokki internetu BP Actu point com ñoo leen di nuyu bu baax a baax di leen ah, la tey nag depuis ce matin ah, ñoo ngi gis ay image mu nekk diggante Wally Ballago sekk ak benn gendarme ñoom ñaar ñoo ngi confronté wu baskan bi ñëpp daal di ci teg seen bët ñu ci bari di filmer boobe vidéo ba tax na nag ba suñu joon yàlla tey jii kenn xamagul Wally Ballago Seck na lan la jotee ak gendarme boobe ba di ko poursuivre te naan ko wàccuma tali bi ndax yow yaa ma fi bàyyi nañu ci bari nii dafa arrêté Wally Ballago sekk ba pare bañ mu daal di wàcc oto bi ndax xam na ni bu wàccee rek day créer embouteillage ndax ñu ci bari dañuy bëgg a taxaw di ko xool rawatina taximaan nekk borom oto yi doon romb ñi nag joxe nañ ci leeral ñu yëgle ni rek gendarme ba da koo bëggoon a signaloo benn papier ndax da ko jàpp mu def loo xamante ni naka su dul noonu la ci kaw tali bi wàlli nag loolu doon refusé signé teg ci tamit di ko yëg ne fa nga ma jàppee ci digg tali ba du ma fa bouger centimètre sama oto boo bëggoon ma bouger di nga jàppee ci beneen bërëb boo xamante ni dina permettre yeneen oto yi daw lu ci mënti am ba xam Wally Seck moo nekk ci dëgg wala gendarme boobee fi lañ koy indiwaatal sur la BP Actu en tout cas vidéo boobee jamono ji moo def le tour des réseaux sociaux alors que tey ji moo na anniversaire u Faramareen bi jërë ngeen jëf mbokk yi